ci yenn kaay yi. ci yenn yi. El Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal koy door ak xam ne rek jëm na ci ubbi te ñenn ci kilifa diine yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum Sénégal ñoom itam ñoom ay juma loolee nga xam ne moo di tiwaawoon ki moo di xalif général ba moom kay dafa joxe ndigal ñu daal di tëjandi yi duñu xamale and mosquée nga nga xam ne rek ñoo di waa Omariens yi ñoom kay jamono ji ba léegi lu jëm ci ubbiteeg jumaa ji ba léegi rek waxaguñu dara réew mi quotidien duñu xamale lu jëm ci ubbiteeg jumaa ci réewum Sénégal jamono ji kay xamal ne ak lu mel ne xew daal jamono ji loolee bokk na ci li nga xam ne dañu koy waxtaane ci réewum Sénégal leneen loo xam ne ñi ngi koy waxtaane ci réewum Sénégal muy lépp loo xam ne rek jëm na ci déplacement yi nga xam ne rek dañ ko war ci yeeg yu ni mel yéene gi duñu xamale Aly Ngouille Ndiaye yi nga xam ne rek yëkkati ko moom kay dafay xamle ne toog waaye nag képp koo xam ne rek am na ci fekk jamono joojee l'observateur yéene kaay gi duñu xamale jamono ji kay yenn ci jàngalekat yi dañoo lànk lala ànduñ ci googal ak dogal yéene kaay gi duñu xamale ñoom kay la wax moo di maanaam daal bëri na ñoo xam ne ay élèves yoo xam ne boo moytuwul lii nga xam ne rek moo ci réewum ko mbas meeg yu ni mel Le Soleil yéene kaay diñu xamal ne turé mi ak lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ki ay personnalité seet moo di saafara soo xam ne gaaw na ci covid 19 nu mu gën a ñu dem ci Vox Populi nu mu gën a gaawee yéene kaay gi xamale jamono ji yi nga xam ne rek daanaka ci ak confinement la nekk yéenekaay gi duñu xamal ne kër yoo xam ne kay ma ngay tas di baax ndax ay jafe-jafe yéenekaay gi duñu xamal am na ci yenn ci ay soxna yoo xam ne kay ña ngay seede kenn ci ñoom kenn ci ñoom di madame Diop di xam ne ne moom kay borom këram da ko wulli ba mu nooy keneen ka madame ñaa di xam ne ne moom tamit jamono ji ci reer bu tardé dong ci la ko ba mu xee ba mu daanu kon boog ana ñi doon wax naan jamono ji confinement bi dina téye borom kër yi ci kër yi ah mën daal ay ba ma xaatee ki jafe-jafe daal bu taxee dóorante ba jolli am na lu ko jiitu woon ji ko kenn mënu koo nëbb ba suba Verás o